d'aller 17 26 novembre Dowling leen showroom ba nekk Yoff cité biagi, parcelle croisement 22 ak ci téléchargez cac sénégal cac sénégal kadi Dal Moubri Dole. kadi CN Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best.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 étoile africaine. Awalibis vous propose les meilleurs produits agroalimentaires 100% made in Africa. Passez vite vos commandes sur notre site awalibis.com, nous livrons partout dans le monde. Matidi.com et Couture Global Textile, Pinot Fashion, Ara, Bachik Universal, Fatishop Shop Prestige, M60, Ruby, l'horlogerie sénégalaise, Babs VIP, Noé Couture, Harlem City, Amna. C'est toujours les mêmes personnes qui font la grève ou quoi Vous faites qu'elle réagir, on passe à la vitesse supérieure. Il est temps yow wone yaay kanti biir famille bi depuis que vous que sëy ak tendre ba changé yow yaay baadoo la géej amul loo deful pour dugg Agro drip. yow complice nga Tanor lu mu def xam nga ko. lii suñu suuf la. côté gauche gi yëpp maay borom Retrouvez votre série La Graine du Pouvoir tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h sur la chaîne YouTube Marodi TV. dajale jaboot doom rëccu It's a time. waaye révision dafa am heure ay instant wàññi njàng mi wàññi njàng mi dangay dem ba sa yuur yi day jaxasoo ngay dof de ñu bëri nga fi di di yey ay këyit nag njàng leen dof loo xoola ni nga wowe xoola sa put bi ni mu génnee nii di mel ni ginaar yooyu waaye wàññi njàng mi nag yow dama xam ne yow atum yàlla doo nelaw yaa ngi ci njàng mi mbaa jouru bag bi doo ñëw di nelaw nelaw tata bay ma sonu benn yoon bag bi ji ñëw na ba pare une semaine a ci des mardi bii di ñëw bu ci topp. talaata menn. ko bàyyi mu def la nécessaire rek. yow yow de waxoo ma jàmm ana na bu yàgg. nelaw. retraite bi mu dugal lii si caax yi. ci sa caaxu lay dugg. Oh. waaye. yaay. Omar waay nelaw. yaay moins 5 li moma déssé ma dougal occasion bi yaay occasion de but allahu akbar yow ndekkee ya ma teree tekki ah, yow yaay xaj ya téré sa bop téki ké sa nawlé la instant ma nga tuk tim ci ay kayem di jang Omar dans une semaine moy bac bi nga tëdd fi di nelaw bay waxtu ay Omar yeureum ma ay kujida am borom gis nga man duma jang sama heure ba mu mat di jang heure jinne yi de instant sana budé jinn la mom la jangax jinn yi bu bag joté jinn yi foqati bag bi mo xam man même ma way yek ci sama occasion bi nga ma yaaxal ni balaa bal bi di corner ay way xalé bi dina yàq sama liggéey ci kër gi ah, ba na yalla yalla fay la ko yàlla yalla fay la ko deg ya yes la ya bon sa ta di mel luñ tap xaj bu bi cim ko muti ko ndaw yi la yow te sax ngay nelaw lampu làmp di fay. wa soxna marem diggante leila ak wayam ji defe nga ni ñu ko cam dina ci and ak jara xalat te ba ci gëna jaaxal nak moy mooy nijaay gis nga leila nek na nit ko xam bu xasse joxe xolam bi joxe nako te fu ne sori na de amatu tank ginaaw tank nam kanam rek joxe nako ba bare man de man jaaxal man di digënté bi jaxal na ma. kooku. est-ce que Cheikh Tidiane waxon na tay day goudé ah man Cheikh Tidiane goudé ki ken weesu na guddee. ah mom rek lay doon waxon na tay day goudé ki weesu na guddee kat. numuy def. ah day na waar ah wa mom mom numu def ak sa numu mu def nu def ak sa deex ba mi ngi koy jàppale. sama sama tiam lool nga xam sama dom la sama xarit la jappalé sama dom ji bëgg ko gis nga boo bëggee yaay da ngay bëgg dom waaw noonu la waa Omar nag baa mi ngi koy dimbali. dof gi ci ndey gi yëpp a ngi ci moom dof gi ci ndeyam ci ak yebaate gi lépp a ngi ci moom. man kañ naka jekk ma ne Omar mii am na lu am na lu bari lu manqué moom dafa mel ni xel mi neexul sax. xel mi daa lu mu reere bokk laaja na fàtte naa ko dara ñooñu ne yebaat moom yaayama yem. waaye waa yen ngeen dem rek ken déggat len mënu len sa wote sa telephone ñoo ngi koy top bu baax ngi jégalo ah lo kañ amul top nak non ngeen def non la kër gi mom jamm da ko filtrer mom ah déet way ah yi kañ mom moy lool wa ana faa nag ba mbaa yaa koy top top ba waaw ñu ngi ci gor gor ko top pour mu stress kër gi de. ah gorul de waaw fa mom machallah kok mom. waaw soxna su melni mom da yombul. ko jàpp sa fukki loxo ak man ba damay toog sa di xalaat ne femme yi muy demee. Bakir ah, waaye nag ak façon bi mu ko defee sutura si ak teey bi ah faa daal xam naa ne moom daal macha allah moom daal benn jeeg nuróol ak benn aaw ci kër gi. man daal dëgg li may cappi cappi yëpp foog ne maa ne ndeke rayu ma faa moo jënd ndeke ràmbam. man kay ku bàyyi woon nekk cobraan boobu laa naroon tabaski ma am defet nag bakir ak li ma ko baal di masqué ah, li ma ko fekk kër bëgg yëpp kii nag il faut ma changer kii ay dóor faju dinaa xam lu may def ak moom faa nag ba mu ñibbisi incha allah dina ma fekk. Akir Thiam. yow tuut maa ngi lay léegi.

baal ma ci dérangement bi de dama la soxla woon. awa Cheikh noo def mbaa jàmm. fii jàmm la kañ papaam man dama bëggoon tàmbali liggéey pour mën jàpp ci dara bëggoon nga dimbali ma rek wax ak Sadiq ndax bàyyi ma liggéey loolu am benn te di liggéey incha loolu lu war du ma sax xaar jóge màkk léegi laa koy woo na sa xel dal waa jërëjëf jërëjëf jaam jaam yaa ngi leen di may noppi yow lan ngay wax yow Ousseyn Ndiaye nit am nga li nga bëggoon demal liggéey waaye na la leer du yàgg ndax amin bu ñaaw nga am muy jaxase baay ak doom waaye li ci kanam raw li yaa ngi xëy. waaw maa ci yoon bi. góorlu de xëy yombul de. gis nga liggéey dafa jafe. te ndaw yi waroon na xëy ñu bari ña ngay nelaw. waaye yow la ko yàlla mayee da nga cee war a góor góorgóorlu tey ci fukki loxo moo gën xëy rek du ci wat sa beeg estati bu ñu dugal nga commentaire ci am na lu ko gën de te nag awaseex seex ñi ngay fekk ji fee say nawle lañ. ci lan ah boo demee ba woote liggéey changer sa garde-robe bi lan la yow Nah, lima ma soxla moo ci nekk. ah yow yaay yëmbaxle di nga naan lu ci nekk yaa ngi mel ni dëxin nga naan ma lu ci ne ñun ñii sax waa kër Ndiouga ñun say nawle lañ awa Cheikh fu mu kër rek lu la. man bala maa dee rek nga jël sa col bi rek wërale ko ci sa bopp bii di ma sa front point Sandaga xanaa croisement Cambérène sax léegi jag na defar nañ ko di ah. na bu baax na dégg naa waaye defar sa bopp bi ndox nak man bala maa dee rek nga mel ni yaa xaañ ma dégg la. waaye changer jikko waay te ngay jël taxi nag waaye yooyu. waaw baax na maa ngi ñëw dem yaa ngi dégg faa. faa man. faa Bintu. Hmm. weekend la defi won waaye soppi na ko semaine de pour man mi rek. doo changé doo changé. <laughs> ndax man jàmm laa woote xam la maa ngi ñëw dem. Eh, foo jëm kaay bul fàttali ni tey yaa aye. démb da nga taxawalu ci all bi bu mu guddi nga yoogu ñew ba ma togal la reer lool nak du ñaar de du dox ak man du amati lool kay moy géej gi amna dox pour du amati du ma toggal benn ayam muy won lool mom def ko ci xel ci bu muy teel na bu deg na la leg dina xol nu may organisé ba di teel ak ci di ko defal sama. ah looloo gën ci yow ndax ba nga demee ba nga ne da nga woote liggéey nga wara mëna motalé sa kër waye yow fi motul feeb ah yow xoolaatal sa bopp waaye. baax sa téléphone baa ngi sonné. gis naa ko. waa doo wuyu. Nabou gis naa ko. aw Seex ku lay woo. Nabou ñu yendu ak jàmm. aw doo wuyu yow. Ah, yow moom commencé woo sax bëgg a luus nii ah baax na ba may mi pare.

bu yalla dogalee ba mu dugg ci seeni loxo mom examen bi dina bax kan yow mi yow mi nga xamné da nga fena fena fena gëm say fen yow. ah tuubal li nga wax. tuubuma ndabu tuubal li nga wax waroo wax lolu yow mané nga dimbali Omar de mën na ko yobbi serigne aduna bi yépp waaye yow bu yexé ci yow moy ñak na bañ bi. nonu nga ko gisee ab du doxé la nonu ah kon baxna kon baxna dóorkat bu bon bi triant bi boo dee yàlla nga taw ay xeer li jëntiwuma la soof bu bëgg a dee Nabou Gueye Nabou Gueye Nabou yow laay waxal bi ah déggoo ma jullit kañ bu la nuyoo danga ko war a fay hmm. yow bu génn goo ci lii ba léegi yow tam hmm? maa ngi yow xool sa defoo ma ko na bu xamoon ne bi nga ne tekk ba léegi lekkatuma naanatuma ah xool ma xool ni ma ome maa ngi mel ni squelette vivant loo ma dimbali ngir yàlla. yow dencal ma sa cus yu lax yi. waa léegi Nabou yow mënumaa comprendre Nabou kay xanaa xamoo ne man saa yi ma yeewu rek sama bëggeel day gën a bees yow man je t'aime à la yow xam nga ne man sa tekkaaral bëgguma ko man yow ngay yuuxu di gajjiwaate man sa loolu moo ma gënal sa noppi baaxul doo wax ak man faa dafa xam ne man kilifa xalil laa rek man sa tekkaaral bugguma ko loo ko xam cee war a konta man nga dóor ma sa moom a gënal sa tekkaaral bi parce que xam naa ne am na looy waaj na bu laay wax Ciao. Eh, ak nga yàgg bëgg ordinateur nag sama ordinateur bi nii nga daan def ma daan tegal buba, buba, mon petit ourson Buba buba mon petit ourson daal la ci tegal ne gili gili <laughs> xadi di Yo, da ngaa musa a nak. nag princesse nga mus a doon yow macha allah li nga am yombul de papa bëgg la yaay bëgg la loolu ab yombul ci Omar Thiam ah? hmm, ya rek ko bëgg man moom lijjantiwu ma ko ne moom wëndang la taluma sax. papa lo bëggati. lu ma bëggati dama yow luy loolu ma lay ma lay ma wax sama wax nga naa ma loo bëggati. maa xam ne am na loo bëggati rek. xoolal ci foofu la bëgg jëm ak yow ya sax num mu ki sa <laughs> yaay. yaa ñëw de Nabou Guèye. Nabou mom la bëgg nga wax ak mom sa yaay daf ma fan yépp def mako dara eh man mën naa la jënd sama bop de waye dama xam da nga di dom te yow dom xolam nga mo doon bëgg nga waxtaan ak mom xam nga dom doom bu jigen ak yaam dañu jégué yow biso yow mom bu xalu boko xolé ben xol sax mom mu daal di bàyyi na bu daal mo teudi di gént may jëndal jigen xar loolu loolu loolu mu bëgg ko def problème hmm? loolu jamm la mo bëgg nga wax ak mom nak te man sa yaay man mom fu man mom lay top top ma kenn wëru ma kenn sa yaay lay wër suma ma damay am problème mo bëgg nga wax ak moom. baax na dinaa wax ak moom. xam sa yaay bu baax ne mom bu ko rabbi bi day melni dof waaye yow mën nga ci dara man xam lool. Na su bas lu ak def lu ma mën na bu mom ay mbiram ma duma la ko wax. Mom neeku na gif rek nama bal. lu mëna am nak lu ñaaw ak lu rafet ak nama bal, ma yomb na kañ xanaa ci na nga dagal ma bag bi nag dagal bag bi de. ñaanal ma rek. su boba ba ma salar ñuko. xadi dag na bag ba xadi sagal na <laughs> eh concentré wul nak. damay liggéey de.

C'est de ah sama at Punch, c'est leen seen xol ak punch série Babel. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Resto Ataya Bibo

yéen ñëpp ay am bakk. lan ngeen may xolé ah nu la dul xolé dimbali ñu rek bu ñu yàqal suñuy cadeau. nañ def bàyyi may leen ma waxtaanee seen bàjjen tuti si njëkk ma sadiq Yassine ça va ça va kay to ya ngam jam ngam jam kay. wa sa digënté ak euh, babakar Mbow. laa bëggoon ñu waxtaan si ndax kenn ku ne gis na fi ngeen jaar yéen ñaar gaañante ngeen def ngeen lu nekk taxul kenn bàyyi moromam loolu rek day wane ni yéen ñaar kenn ku ci nekk bëgg na moromam moo tax ma bëgg bu fekkente ni lim doon woote dëgg la te mu ngi ci moom ba tey bu góor gi ñibbisee na yoon ay kilifam ñu may la ko ngeen sëy c'est-à-dire Mbow waaw. Babacar Mbow. lan la lu xew. Sadikh mii mënuma ko wax ne Babacar du tëgg. lu xew. dara dama ne woon ne dinaa ko yóbbu si maman Oumou mu nuyu ko rek. waaw loolu kay lu rafet la yëfu kilifa dëgg la te nit amul lu sut ay kilifaam te boo demee nga déglu ma mère bu baax a baax ndax nag. tollu nga ci sëy Layla li nga war a dund ci foo yëpp jaar nga ci instant bi danga ñor xawma pour sëy kon nga jël Babacar yóbbu ko sëy kilifa man dama koy rafetlu te li ma gën a neex si wax ji sax mooy baabakar euh, dërëm bi génnul gaal gi mu ngi mel ni rek nga sotti si ak def si ndax tëgg bu ñëw di ñaan moroomu tëggam day sawar lool pour may ko kon xam naa ne bu ko góor gi dina si gën a sawar kontaan naa li nga wax. yalla nako yalla motali inshallah incha mom rafet moom rafetlu naa ko wax deug yalla xaaral yegg ci bir sama gain nga ko. yow de da man la nga do ragal ca waja loolu am de géer bu set wecc mbaw yéeri la de mbaw yéeri mbaw tukulóor mbaw ah, loolu moom doy na waar di ah ëpp na tool waaye nag yow yaay fexe sa doom teg ko ci sa wet te waxtaan ak moom ndax ndax ñu ay ñeeño lañu te duñu rax suñu deret ji te li fi maam yi bàyyi woon duñ ko mës a bàyyi benn yoon te du fi mës a jóge it loolu mom deug la bàjjen Cory ndax ñun ci ciosan ak aada rek lañuy dox waye xam nga princesse leila dëgër bop gi mu dëgër bop neexu la wax lu muy deg ah xana ma xaar njugo ñew rek japp ci ñu waxtaan ak mom <laughs> umu leila yow yaay ndeyam leila juru la yow juru jur leila est-ce que yaag may deg bu baax te gis nga damaa bëgg nga génne sa xel ci moom bàyyi ko mu wër kaaba gi ci xel mu sell Layla Thiam mii yaay ndeyam ah na dem seeti leneen ñun ñu téye suñu doom ji ba gis leneen ndax nag géer sa géer ña ñeeño sa ñeeño te loolay dëgg nag salaamaaleykum maaleykum salaam ma fii ça va Ça va bien. yaa ngi ci jàmm. maa Kori. ça va bien. def. toog leen. Kori tey sedd nga di xanaa déggoo Babacar ni lay nuyoo. ah kay mbaw yéene mbaw tukulóor mbaw tooroodo noo def. maa sant yàlla bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. da nga yenn si tey ah ça fait l'occasion sax parce que dañ na jaar kër ga la wut fi salan looy wut ca kër ga lay laa yow li ngay taxawaale lu mu doon yow sa taxawaale gu métti gi nga nekk ci diggu dëkk bi gune gi doom mbaa jàmmale yee dama koo nopp bàccan ah, kon di ngeen a bëggante nii wax nga dëkk yaa toll ci bëggante waaye na nga bàyyi xel ni takkaguñ la du sa jàkk ja du ca église ba te xale bu jigéen buñ ko takkul dafay toog ci pooju ndeyam lay laa ci am toogal ba nga dégg alxayri ngay wër di taxawaal rek mel ni ginaaru njaboot. bàjjen daal xam naa ne yow doo changé man xam nga man awma ci yow benn soxla Babacar mii de moo la soxla woon. ah Càmbaabeen man maam si yow soxla <laughs> ci yow soxla. en fait euh, bàjjen dañoo tardé nag mais mieux vaut tard que jamais tey dama ne woon laa nañu ànd bu ñu ñëwee andi leen seen ndéwénal. bébé hmm? mhm. eh, wil ma saag bi. waa Thiam ah Thiam Babel sañ nga de waaye xam nga man xooluma loon bu baax waaye li nga kase lan la eh kase nga kaw ak suuf de. macha am lii nag yaa ko moom xeeb naa ko trop nag vraiment dama ni woon sax damay ñëw kër ga te fekk naa la fii ça fait ah Mbaw yéeri kontaan na. Babacar man kontaan naa de li de mënuma koo ñak baña jël. waye sama xol sedna ci yow. ah ya ko mo bajjen je l'ai fait avec beaucoup de modestie nak kan xana ya, ya, di la ñaanal rek yow ak Layla Thiam mii yalla gëna a dëgëral seen ant ba lepp lo xamanteni bëgg ngeen ko seen digënté rek suñu borom motali ko ba ni ngeen ñu talalé ni ngeen tok ba seen njaboot di leen teral. jërëjëf kontaan naa ci yow. merci beaucoup. borom mami yi kooku fóor kenn da yow ci mi rew euh mama yow tamit sa walu ñu nii vraiment xeb na ko trop. jef li ci dess yalla na amin. amin amiin waaye lii yëpp kenn merci beaucoup. ah Babacar sama xol sét na dé guy nga sawar rek nak umu ki dafa sawar dé ndax nak yar bi teggin bi ngeen ñu defar rek doy sëkk yow may nga ñu yar may nga ñu teggin kon leneen jox rek bénéfice la contane na ci yow e ampuro yombul de dajak mom ci mbedd sax dafa yombul waxtu mala am daagu ma dugg ci bir kër gi e contant na ci yow de euh dafa melni waxtu bi jot na nak pour ma ñew julli xaar ma ñew wajal waxtu bi i i i lolou daf may neex lolou daf may neex ci xalé bu goor bu tok ba yag di fatlu ko suñu borom lolou daf may neex lol sax deug la umu gis nga gune ki seen dekk dekk mamam xamuñu ludul ñap julli jakka ja kurus ga kala ga macha allah ah lii nga def daf may neex xale bu koor bu bëgge guddu fat day bayyi xelam ci suñu borom di fàttali ko suñu borom baax na ta ya nga ja contane na ci yow macha allah jaamu yalla yéen ci tok ni han ah, Layla yobbu ko way way way ay way waay waay merci Sokola eh eh eh eh ñoom seen couple sax dafa rafet waaye yow man damaa bëgg a jommi wala lan moo xew wala kii du bàjjan kor yi ay umu caam ku di caam a ngi nii caam baabel demba caam borom deni baas lan moo la jommal ak lu la tiital ak lu la waar lan la yow yaa ma jommal yow mi mel ni ku ñu cuub yaa changé fii léegi nii waxo woon ni Leyla bu ñëwee dangay waxtaan ak moom fii mook waayam ji umu lu teree yow mi ndeyam ba sa doom ne salaamaaleykum nga woo ko taaj ko waxtaan ak moom. yow mi bàjjanam nag te bàjjanay baay. yow xam nga lay laa jaam dafa réew ba àdduna yépp xam nañ ko te sax nag umu diggante sëy ñeeño ak géer yàqul diine waaw danga wuy sa téléphone bii di sone eh. allo. wala ma mu jàppal ma bagage yi. kon Insa. waaw nekk fi de. Insa kañ la daan dox bay génn heure bi. Insa dem la ànd ak Omar. Omar man. waaw suñu Omar Thiam. Insa daf may fontoo wala lan ak bag bii di ñëw mu ànd ak Omar heure bi. ay laaj ma lu ma xam. ñëwul jàppal ma bagage ba ñu ñëw ñëw. ba mu fekk di ñëw. moom dañu demoon tey damaa. yow nag ànd ak kii ma la àndandoo dañ koy tànn ki nga xam ne jom dafa xëy mu gont ba ay ñaata fan moo des ci bag bi nga ànd ak kii bi génnoon demoon fan Issa. mais ñu doxantu rek pour ma dañoo génnoon rek jël air. yow sa gémmiñ gi waxuma ak nag yaa ma yab yow ñaata nga bëgg a def bag bi ki nga xamante ne jom dafa xëy mu gont mom daf ko wóor na ne assuré ne mom amul bac bi moram la ci bëgg andando motax muy and ak yow bu échoué nga andando échoué. ay waye ndaw Samba yow nak ya neex waaye yow eh, eh awa seex nak yow nak yow nak da nga ah, yow effronté nga dé yow nan nga mëna téggé sama dom ji diko xass pour lan ak foko ko xam nga len la bëgg sama instant mi ngeen tégal ma ko fi ndax ñun bac bëgguñu ñuko def ñaar ñi ñett yoon andu ndaw mak mom soxlo ma and ak mom wàccal ma fi sama instant ni ma ko tegee noonu. wax nga dëgg. ki jom dafa xëy mu gont de. wax nga dëgg instant ku ko jot yow boo amee kii di ànd ak instant nga war a daw ba fatt kii di xullee ku mel ne looy bu jël premier kii bu amee ku ànd ak moom mu daw ba fatt ndax kii deful dindiwul daa mel ni ndayam deful dindiwul mi ngi mel ni bàmmeel nag kunuus la def waaye yow kii di ko dugal ci seen bi ak ci taawun bi dana am looy wax boo amee muy ànd doo sant. leen laa am sama doom tegal leen ma ko soxla ma ngeen dugal ko ci seeni i leen yéen résultat wu sew lu mu leen andil lii ñaata yoon bag wax nga dëgg yow nag fuuy nga. waaw seex nag yow iñaan dam na la de yow soxor dam na la man dama teggoon ne yow xamoo dara innocente nga ndekete yoo yow ko soxor nga nag yow nag xoolal xam naa li la yëngal ak li jëx-jëxi sa gis nga bag bii ndayu kenn moomu ko baayu kenn moomu ko yàllaa koy joxe. te incha allahu rabbi nit jàng na ba dee sax te amul bac ñaan waajur da koy joxe nag ndax liggéey naa ko ci kër baayam nag incha allahu bi da koy jël te nag li nga yéene sama doom ji ah moytul mu këpp ci sa dooma ah moom moytul nga am lu la bett de. na bu li nga sax yow danga koo gëm. waaw baax na bac bi soreetul nañ seetaan seetaan dafa dàq ci ndaje waaye waxuma loolu de xam nga lu la metti dama lay comprendre nag sa xol du neex. li la metti moy xalé bu tuuti mo japp sa jëkkeur def ko kuti mbombo mo nan ko ew ew ew oh. sa xol di tak mëno ci dara li mo la metti fuy ba bagade dee waaye nag s'il vous plaît tamit yéen nii na ñi ngi am suñu bag mu doy ñu sax ngeen bëgg si teg ay xulo waaye bu la ñu stressé way tamit man sax nak dama perturbé ba paré xadi bag bi bu ma ko amul bu mu la bétti de man essaye man sama moral damm na jàngal sa leçon yow nag nag da ngaa am eh, amee liggéey ba tey xamoo lu la tax. cëm soof ba bëgg a dee. bag bi da ngeen koo moom la ndayu kenn da koo moom iñ ñaan rek iñ ña ñetti ku ci commencé liggéey rek fatt nit ñi si si chata si sun waaye di ma fekk man yaay ma gis la yow damaa gisewul dangaa ñeme gisee xadi caam ay sonal nga ma waay man man xaw ma ñi fatt nañ ma waay yow waaw ah. tara bu nak sama sër mu ni fi tek daw yow nak duma wax dara ndax amo kilifa amo éducation de base jërëjëf merci yow du duma lako ko waye waaye sa ñëw bii nga ñew de bet na ma lool te nga ñaan yalla may ñew walu lu doon say tànk tey man da ñet soxla rek ñoo ma yëkkati won ci njëkk moy bagu instant sama ko bi ba bintu bi ci top nak moy sama liggey bi ci top nak moy sama borom keur muy bakir jaam benen be sama digeunte ak sama wujj bi lamuy jojo ñettel bi nak moy sama domi wara def bak kenn ki khadija am la tuddu kenen ko omar jam. baax na bu sobe yalla dana ci taxaw bu baax inshallah changé seet de suuf si gis ngay gis te naa ndox mi de. alhamdulilah ah li ma woon daal mooy muy sa wujju peccoor ko boobu hmm. yàggatul dara allah naam ko la ko xeexle ci biir kër. moo dinaa la jox benn parfum nga di ko xeeñoo waaye nag ñu ngi ci def ndànk waaw ndax boo ko xeeñoo da lay topp dama bëgg Bakir Thiam topp ma ni xaj ñetteel bi nag wàllu xale yi def bag ku jigéen ki moom am nañ ci yaakaar lool yaayam la jël daa am jom waaye nag ku góor ki moom ci li ma gis xel dalu ci Bonjour. Et pas Mary. Mary.